asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu ngeen déggee lii ngeen xam ne lislaam xewleeti na mbokki sénégal mbokki umma islamique mbokki gambiya mbokki diaspora bi ñu ngi leen di yëgal gàmmo gu mag goo xam ne at gu jot ñu def ko fii nga xam ne moom moo nekk bani si ndigalu Cheikhou Badabo Sakombo Sagna si kelif teefu sii di Diame ñu gën koo xamee si gaynde muy kilifa gu mag goo xam ne lislaam rek a ko si mim réew mu nekkee fii si bani moom mooy wa askan wi benn fan si weeru mai 2023 muy le xam ne nag mooy dajale njaboot ji di dajale taalibe yi di dajale képp koo xam ne rek yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika si guddi gi muy le 6 mai 2023 fii si bani më ne mbokk yi ñu si woo képp koo xam ne taalibe nga di si woo dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo wër bani waaye fàttewuñu nag ki nga xam ne moom moo nekk jamilu daabo ak daayira yi nga xam ne ñoom la àndal yépp mbokk yi fàttewuñ ki nga xam ne moom moo nekk adama daabo ñu gën ngeen ko xamee si aado di si woo ki nga xam ne moom moo nekk Moussa Diame nekk imam fi nga xam ne moo nekk Kouta mbokki Sénégal boo ne kilifa diine nag ne kilifa aada ñu si woo ki nga xam ne moom moo nekk le premier magistrat de la commune de Toubacouta ñu koy woowee monsieur Pape Dianko député maire waaye di si woo ki nga xam ne moom moo nekk le sous-préfet de Touba Kouta Toubacouta wuñu ko si di woo le ministre maire monsieur Latif Koulibaly maire bu Sokone ma ne mbokk yi fàttewuñu dëkk yi nga xam ne nag ñoom ñoo war bani rawatina fii si bani ñu ngi siy woo képp koo xam ne rek taalibe nga képp koo xam ne rek dëkkandoo nga waaye itam fàttewuñ dëkk bi nga xam ne moom moo ne Toubacouta Missira Betenti Bosinka ba Tasilaame Suuru Sukuta Medina Sangako Bamako Firdawsi Toubanding Kër Layen Sose Kombosanyo Karang Ndumbuj Santangba Dagababu Sanc Taba Sokone Sandikoli Jinak Sénégal ak jinak bu Gambi Tabanding kon nag mbokk yi ñu ngi si woo dëkk yi yëpp képp ku dëgg bi communiqué xamal ne mooy sa invitation foo mun a nekkee di si woo nag taalibe yi xam ne ñu ngi sax Italie France Espagne Angleterre Londres ma ne fépp waaye nekk rek si diaspora bi ñu ngi leen di woo si bés bi bépp information nag mun ngeen a jokkoo ak ñun si bile numéro 77 268 18 93 ma ne mbokk yi bésub lislaam a ngi noonu guddib lislaam a ngi noonu kan nag moo nar a jàng-jàng yi ma ne ñi nar a jàng-jàng yi bëri nañu lool waaye dañuy tànn ki nga xam ne moom moo nekk Khalifa Dabo ak ki nga xam ne moom moo nekk Boubacar Sagna